ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification

loo tax rek tey équipe bu Caaroy info daal di déplacé wu ngir ñëw xool ñi nga xam ne ñoo di famille bi waaye aussi ñi nga xam ne ñoo di am di jàmm bi ñu daal di ñuy leeral lu ni mel nan la demee ndax boobu ba léegi euh, samdi ba léegi tey ci li nga xam ne rek moo di mardi bi la ñuy doog jot li nga xam ne moo di koor bi donc mu nekk loo xamante ne lu xaw a doy waar la euh, mbokk internet yi ma ànd ak rek ki nga xam ne moo di Siraja Diop ñu daal di dem xooli famille bi waaye daal ci andi ay leeral bu baax a baax ngir di leen koy jox rek yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp saa su ne Thank you. Ndey soxna Samba lan nga ci ki nga xamni mo moo wàññeeku bokk mom ndey ak bay sama rak la mom moy suñ ciar Euh, tey jii est-ce que mun nañ xam euh, li ñu wax boobu ba léegi dañ ko rey nu mu demee euh, est-ce que mun ngeen ñu expliquer au juste lan moo xew. waaw demeewul noonu nag mbir mi daal agression lañu ñu gën a nduru parce que dañu samdi lañ nekk fii ba di jot ci lañu suma benn goro jëkkëru tàkk sama doom woo téléphone bi mu wooyee Thierno sa nijaay mu ne ko. ñëwal hôpital Medoune dañ ko agressé kër gi ñëpp tëb ñu dem hôpital samedi samedi ay midi bi ñuy demee nekk nañu moom ba 16h après si la yàlla weddi bi ñu demee moom nee na ci sama atelier papa ci kaw lañ ko fekk. sama sama atelier papa lañ ko fekk ci balcon bi dafa am ko doon euh, defar fiilu antenne bu mu yéegee ci kaw après moo ci yem. mu wàccee mu wax ba sam papa ñi mu lay yooyu ci suuf mu ne leen am na ko tëdd fii après bàyyi laay daal di jóg dugg ci biir yéeg ci yéeg escalier yéeg ci kaw xool muy medul mu xoole mu ne ko medul ça va mu ne ça ko mbaa jàmm la mu ne ko waa mu ne ko def lii ma ne dañ ma agressé. ko agressé ba pare yóbbu ko foofu. waaw ñun nag au juste loolu la ko may ma ma naan mu daal dem may ko ndox mu naan. après si la wàcc dem place bale sama goro bi wax ko ne ko ñëwal léegi bi mu ñëwee mu xool ko mu ne ko mais melu looy def fii ñuy waxtaan mu ne ko dañ ko agress fiñ la agressé ñu ne fallu war ga nag nak ñu ñu jaaxal moy fallu war ga bu andi ko fofu ci atelier bi ak état bi mu toll. distance bi dafa sori. fallu war ga ba ci camp bi sa ma place papa ci camp bi la loolu daal moo ñu jaaxal après biñ ko jëlee yóbbu hôpital def nañ son yëpp yëpp mais ba ngeen gisee yaram bi nan la mel parce que kuñ agressé dañ ko gaañ dañ ko jox wala dañ ko gaañ dañ ko bopp bi lañu door jaasi jëbi jëbi lañu xaar perdre nak sang bu bari foofu sur place léegi ba ngeen demee hôpital ñaata temps la nekk def nañ fa 4 heures de temps def nañ 4 heures de temps ndax boo xootee ko on tey midi bi ñu ko kii ba 16 heures bi mu gaañoo 4 heures d'accord ñu gis ni samedi ba léegi jël na temps ñu ngi doon wax dañuy def autopsie ak yu ni mel autopsie bi lan la génnee. waaw ñoom nag ñu ngi soog a yegsi bi ñu demee def autopsie euh, police scientifique moomu jël relais bi parce que procureur moo ko ko sant waral tardement enterrement bi nii sax waaw déjà xam naa ne egsi nañu ndax gis naa boogaa mu no pour juste xamaguñu pour juste. Euh, ay atam ci ñaata la tolloon bàyyi na soxna bàyyi na ay doom wala. bàyyi na ñaari soxna ak juróom-ñetti bant. 43 ans. coiffeur la yoroon. Hmm. ba ngeen lu mel noonu surtout de temps génn àdduna la la leen def. metti triste nouvelle boo xam ne bett nañu. nit xam du toog di xalaat na tey sa doom day xëy dee wala sa rakk day xëy dee kenn du ko xalaat ñëpp la tiital ñëpp a tiit njaboot yëpp amul mag amul caaro yëpp sax laay wax parce que caaro yi moom daanaka ñëpp famille lañu bi ñu yooxoo kenn desul bi ñu yëgee affaire bi kenn desul ñëpp a jóg bokk ci liggéey bi bokk ci recherche bi bokk ñun métti bi. que da ngeen a nar a yoon mën a def liggéey ki def ñaawteef bi porté nañu plainte moom ci boppam def na déclaration def na déclaration bala ko yàllaa jël déjà am na ñu si jot a jàpp. lan ngay wax si état bu Sénégal ñu mën a def liggéeyam parce que lu ñu mel bari na fi mais la plupart du temps du am suivi. waaw waaw du am suivi parce que dañ lay jàpp jël la un an deux ans bàyyi la nga nekk di circuler léegi yow perte bi nga bàyyi sa famille ah say soxna. sa njaboot doo am kenn koo xam ne ne dafa metti xam nga père de famille yore ñaari jabar huit enfants kooku perte la ci famille am surtout nag doom yu ndaw parce que ay jabaram ay jeune la ñu ma doon jeune la doom yu ndaw perte bu rëy rëy la. tey jii ban témoignage mënoon def ci moom ca ba muy dund tey su ma la ñu woon kan kan. kan mooy la ma macha allah dafa rigolé ba nga xam ne su duggee rek. tellement que di nga ree ndax bu ñëwee ñëppay ree meram doo ko gaaw a gis ah xale yi nag moom ak jarbaatam yi daanaka ñooy morom mm, déjà wane na ne xale yëpp ñu ngi feebar depuis loolu ba léegi xale yëpp ñu ngi feebar jarbaatam yëpp ñu ngi feebar waxuma ñun ñu mu bokkal mais doomam yi mais jarbaatam yi nga xam ne ne ñu ngi yeewoo moom bëree di ko def lu ne suñu sama doom yi lu ne lañuy la def medul lu ne suñu doom yi laa même chose ñun ñëpp ñun ñëpp mu metti ñu nag ba ci kanamu yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel yàlla na ko malaaka yërmande teeru te kat am nañ ci yaakaar ndax ku ñu fekk nga tëdd mënoo yëkkati dara xam nga ne ne ëpp nañ la doole def la loolu koy ñaanal euh, malaaka yërmande ko wàcc suuf ayof te am nañ ci yaakaar bu baax am nañ ci yaakaar bu baax a ñun de ñu mu bokkal ndey ak bàyyi ñëpp sant nañ ko gërëm ko jéggal nañ ko kenn tey lu ko lenn waaw ñëpp jéggal nañ ko ndax boo amee ku wàcc wàcc liggéey nga fekke ñàkk fekkee war ngaa julli ñaari ràkk jéggal ko te dañu bokk moom benn place bi ñu tëdd te son merewuñ ko benn yoon merewuñ ko benn yoon waaw suñu sama yaay kay moom mënul sax bu fekk woon lii léegi daanu war na waaw mooy xaritam xam nga sa caatu yaay sa xarit la wallaay duñ tëdd la tànk medun ñëw medun bu guddee àll medun lii medun lii bis bu ne saa yu guddee su laalee buntu am ah, medun tey guddee nga de medun bàyyil guddee àll medun bàyyil guddee àll Médoune bàyyi guddee àll ndeke ci guddee wàcc la ko yàlla di boobu mu metti lool nag nekk pett bu rëy ci suñu famille surtout njabootam surtout njabootam metti nañu tarap tarap tarap di remercier waa Caaroy gaar yëpp depuis samedi ba tey ñun ak ñoom suñu xëyee ñi ngi ñëw waaw bokk lañu jooy bokk lañu mer bokk la naqar bi bokk ci liggéey bi booleek seeni doole ñoom ñëpp ñu ngi sant waa Caaroy Gaar yëpp góor jigéen mag ak ndaw mag ak ndaw bàyyi ñu kenn kenn sant nañ leen gërëm nañ leen xam nga saa dañu solidaire macha allah ñun ñoo leen amel ak mais ñoom amelu ñu ak ñu koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee waaw te boo xoolee nit ñi rek xam nga ni ma dund kenn. te dañuy sant yàlla nga def nit ki vendredi samedi une heure du matin jëm deux heures du matin ñu jàpp la kon xam nga ne Modou nekk na dara waaw du nit daa du nit koo xam ne ne neen dinañ ko dinañ ko laal di bàyyi waaw waaw jërëjëf maa fi chéri mbokki internet yi comme ni ngeen ko gisee rek ñu nekkoon fi nga xam ne moo di kër Medoune Samb d'après li nga xam ne moo di témoignage famille yi euh, li nga xam ne moom lañ si mën a jàppandi dañ ko agressé daal di jël li nga xam ne moo di jaasi daal di koy dóor si bopp ginnaaw loolu ñu yóbbu ko hôpital quelques heures après mu daal di ñàkk bakkanam waaye mu mel ni rek police mi ngi def liggéeyam ndax am na si sax ñaaw teef yoo xamante ni jot nañ leen a teg loxo euh, gis ngeen ki nga xam ne moo di Ndeye Soxna sàmb di grande sœur si moom daat nay def ay témoignage yu rafet ci ki nga xam ne mooy Medoune Samb mu nekkoon nit koo xamante ni nag ay atam tolloon na si 44 ans waaye amoon na tamit ñaari soxna waaye tamit bàyyi na ñi nga xam ne ñoo di ay tuut tànk euh, gis ngeen mbooloo mi nga xam ne moo fi teew ku ne gis na rek li nga xam ne moo di enterrement bi caaro yi kenn desul ñëpp daal dinañ ñëw mu nekkoon loo xamante ni ay moment de tristesse la mu nekkoon loo xamante ni tamit ay moment yu metti la euh, di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam jamono ji sax euh, denc nañ ko ci fi nga xam ne moo di euh, kër gu mu jëm mu di fi nga xam ne moo di cimetière bu yi di ko ñaanal yàlla rek suur seet si kawam yàlla xaare ko na waaye ñi nga xam ne ñoo di ay mbokkam yàlla teg leen euh, loxo ñi nga ne ñoo di ay soxnaam ak ay doomam yàlla teg leen loxo bu baax a baax mbokk internet yi nii lañ koy defee saa su ne jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di si Siraajo Jaw sama caméraman moom moo nekkoon sax si li nga xam ne moo di xarale gi di masawu bu baax rek ñi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne rek tey famille Medoune Samb tiis bi daal di dal seen kaw waaye aussi jaajëfal bu baax a baax askanu Caaroy bi nga xam ni eh, kenn ku nekk rek daan ngay taxaw fii ngir masawu leen. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification